jërë ngeen jëf euh, xam nañ ne màggal Touba ren dafa am ji contexte yu bu doy waar muy contexte yu Covid 19 ñu bëggoon xam naka ngeen réussir organiser màggal gi ak Covid bi xanaa ci lu aju ci suñ commission bi ñu nekk muy commission organisation nga xam ne ñoom la lañ dénk ci biir comité bi eh, accueil hébergement chefs religieux ak restauration ak organisation cérémonie officielle xam nga ne loolu kon boo ko tënkee. Euh, pàcc la bu am doole ci màggal gi sagam ñooy dalal gan ñi ñoo leen di berndeel ñooy organiser cérémonie officielle loolu pàcc bu am doole la waaye composé na ay daayira ak ay nit ñoo xam ne am nañ expérience ci wàllu nos ak organisation muy Muxaddamatul Xidma ak wilaaya eh, Muxaddamatul Xidma ñoom ñoo yor ak ir hébergement muy kër gi ak résidence Xaadimu Rasuul bi ak bu Daaru Marnaan ci kilifa guy ñëw wilaaya di leen berndeel waaye buñ xasee ñëw ci biir commission bi nag euh, dafay doon loo xam ne commission organisation rek lay tudd kon naka jekk depuis 2010 ñoo koy ànd liggéey bi di ko nos euh, ni muy doxee it nag ci wàllu nosu gan ñi muy kilifay diine yi tarixa yi ak association islamique yëpp ñoo leen di teeru dalal leen berndeel leen su ñëwee dañ leen accueillir teeru leen loger leen accompagner leen ci wàllu sécurité parking seeni oto réserver leen fiche de fiche de hébergement boo xam ne information yëpp la ciy nekk ba tey soo ñëwoon ne maa ngi bëgg a dem laayeen dañu xool fiche bi ne la noo tudd ñu woo kilifa gi ne ko diw sàngam moo la soxla su fekkee xamu la bàyyi mu jàll organiser kër gi it ba nga xam ni day am sécurité ci ñi fi war a dugg rek ñoo fi dugg nga yor bars wala carte d'accès boo xam ne gan gi moo koy yor wala bars bu fi liggéey bu dee lu mel ne presse duñ nangu ñu fi dëkk dañuy ñëw def seen i comme ni ngeen def bu noppee dellu am na ñu yor wàllu googu euh, néeg bu nekk it <clears throat> am ku fa nekk koo xam ne lay yitteem mooy yittee gan gi lu mu bëgg rek mu nekk ci di ko toppatoo euh, nit ki noonu xëy na dangeen am élément yi waa restauration ci ñoom nu ñu nosee seen plat de souris yi ñu togg ak ndekki yeeg reer yeeg añ yeeg yooyu ngir mu doon ay plat yu wuute yoo xam ne menu lay doon boo xam ne képp koo xam ne li nga choisir pour jëfandikoo ko da ko mën a jëfandikoo ndax loolu bernde la kon loolu moom naka jekk ci lañ daan nekk ren nag bi nga xamee ne euh, euh, contexte bi dafa changé muy dafa tombé ak mbas moo xam ne laaj na renforcer mbir yi ci ci lépp loo xam ne dafay aar nit ki ci jàngoro ji nga xam ne mooy Covid 19. ni ko sëriñ bi diglee ci ne nañu sàmmonte ak ndigali docteur yi te moytu naka jekk kon su maggal jubee ne sëriñ bi digle ne nañ koy moytoo docteur yi ne ku def nii mucc ci loolu ñu ngi ciy def suñ kemtulaay kàttan muy exciser nit ñi ñu takk masque. bu ñu bala ñu dugg ci kër gi laal sel comme ni ngeen ko gisee ci bunt bi ba pare bunt yëpp nga gis ñu teg fa ay barigo ak ci biir néeg yi moo am ay sel de mais ba noppi moytu jege gi gën a gën a gën a gën a góorgóorlu bu baax ci wàllu cet gi hygiène bi ci waañ yeeg lekk yeeg naan yeeg furu yeeg yëpp ñu gën cee sàmmonte ak loolu ba noppi di désinfecté fépp ba noppi renforcer wut commission santé boo xam ne mi ngi fi ngir saytu képp koo xam ne gis nga loo xam ne lu la gaar la ñu mën laa toppatoo moo am tamit médecin militaire yoo xam ne ñu ngi loose fii loolu lépp ay dispositif la yoo xam ne yokk nañ ko ba am na ay sax ay écran yu nekk fa yoo xam ne tey boo fa rombee boo amee tàngoor température bu kawee da koy mën a da koy mën a da koy mën a lijjanti loolu dal mooy dox fii ci kër gi mooy dox Daaru Marnaan actuellement nag euh, bu dee fii ñu ngi am 18 délégation yoo xam ne ñoo ñëwagum su dee Daaru Marnaan euh, xam naa ne ay trent 35 wala 40 euh, kon dafa mel ne ñi ñuy séentu buñ ko doon xaaj boo ko xaajee ñetti xaaj benn bi ñoo ñëwagum.